bisu bopp te mooy bisu alxuraan ñu sant gërëm euh, bajaan bu Eiffage indi na fi am koom te mooy joxe na fi cinq cent mille yàlla na ko yàlla fay mbokk yi nag bu ngeen gisee ñuy tudd somm yi moo di dañu fee toogoon daaw am lu leen digoon te mooy lépp lu ngeen fi joxe dañ leen koy dugalal ci këru alxuraan kër googee tey macha allah yemb na liggéey ba tàmbali na amaan na bala ñuy jóge ci salle bi waa communication danañu wan fuñ ci toll lii itam incha allahu foofu la jëm ak lu fi fekk eh, Jamil Karo ñu ngi koy sant joxe na fi 500000 dinañ ko defal ci liggéey bi eh, maire eh, Lika Ba joxe na 1 million Serigne Paplo bu Jamil Karo joxe na 500000 Serigne Kabou Gaye joxe na 2 millions Ndey Dia. joxe na trois cent mille Alioune Diagne joxe na un million Tounes International cinq cent mille Dame Diouf Kaolack joxe na deux millions euh, Cheikh Ba ma ma jégalu Dame Diouf Kaolack joxe na deux cent mille Cheikh Bara Lahat di suñu kilifa gi ñu ubbil jataay bi yemu ca waaye daf ca boole enveloppe bu deux cent mille ni dama koy barkeele mbooloo mi yal na yàlla fay sëriñ bi euh, Fatim Ndiaye Dieng. Euh, moom itam joxe na defe na cent cinquante mille loolu la ñu ma bindal euh, Masilla joxe na deux cent mille Amadou Seck Tanji moom it joxe na un million yàlla na yàlla barke li ñu joxe te ñu xam le ni incha allah ca bërëbu alquran ba la jëm euh, danañ dellusiwaat ci yeneen yi fii tab bi kon ñu déglu suñu ndoom si toog euh, jóge ko ba Sédhiou di Abdallah Souané أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أن الأرض يرثها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إن قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون sadaqallahul aziim euh, euh, macha allah euh, Abdallah Souane jóge région bu Sédhiou jërëjëf ñu ngi sant ci njàng mi ñu jàngal mbokk yi ñu dellusiwaat ci teraanga yi xam ne moom moo fi rot si jëm ci liggéeyu alquran incha allah bis di banque islamique bu Sénégal yaakaar naa loolu la Umar Mbodj joxe na 3 millions 300. tàbbal ko ci liggéey ba yàlla na ko yàlla fay euh, Baye sëriñ Dia joxe na un million Baye Serigne ja joxe na un million tàbbal ko ca liggéey ba yàlla na ko yàlla fay Serigne Mbuub waxoon naa ko léegi di doomu daara moom joxe na dix millions waaw fukki million la joxe dafa na am na lu ci yekk xanaa de takbiir macha allah liggéeyu alxuraan la ki joxe dërëm ak ki joxe million ñooy bokk yiw wa waaye jëf ju rëy nag am na lu mu laaj yal yàlla fay cheikh ba bu impôt moom it joxe na 2 millions macha allah ñu war ko koo defal ci liggéey bi mbokk yi ma di leen bégal ni président de la république son excellence Macky Sall donte liggéeyal Sénégal moo ko génne mu nekk ca biti mi ngi en direct ak ñun di ñu seetaan protocole am jot nañu ko ma nga toog jàkkaarloog lépp lem ci sal bi yal na yàlla taxaw ko ba mu dellu ak jàmm joxe na ci lii nga xam ne moom la ñuy def tey cinq millions muy juróomi millions yal na ko yàlla fay booleeg am xalaat yoo xam ni nag dana ko gunge suñu liggéey bi loolu macha allah na ko ci ñëpp ñaanal euh, ki nga xam ni moo di maam góor joxe na million ba tey ñu war koo tabalal ci Maam Góor Silla joxe na un million ñu war koo tàbbal ci euh, liggéey bi macha allah euh, góor yàlla moom defe naa noonu lañ ko tuddee góor yàlla joxe na cinq cent mille ñu war koo tàbbal ci liggéey bi Serigne Dame Fall joxe na deux millions ñu war koo ci liggéey bi Samuel Sarr joxe na deux millions ñu war ko tàbbal ci liggéey bi Eva Voyage joxe na cinq cent mille euh, Sam Diaw joxe na un million cinq cent mille ñu war koo tàbbal ci liggéey bi Cheikh Diop joxe na cent mille francs ñu war koo tàbbal ci liggéey bi nee na teg ci ay kaamil dolli ko ci Mamour Dia moom it bu Sokowa joxe na un million ñu war ko ko tàbbalal ci liggéey bi Dan Fall bu Sénégal broderie moo joxe 2 millions yi Dan Fall bu Sénégal yi moo joxe 2 millions yi précision boobu am na solo macha allah kon dinañ ci dellusiwaat rek diggante ñaari kàddu incha allah ndax liggéey bi bari na lool te bëgguñu waxtu wi ñu leen diggoon te mooy 14 heures ñu romb ko ndax euh, ñu mën a julli ji incha allah kon ñu ñaan sunu yaay soxna Assu Ba bu ndeyu daare yi mu jàll si yëkkati kàddoom incha allah yaay booy bismillah mu yëkkati kàddu ndey daara yi nga xam ni euh, Cheikh Ousmane Ndiaye coordinateur wax na ko léegi ku ne xam na ni daara baaxoo naa am yaay ju nekk ca koñ ba di xool ndongali ba xam mbaa na muy nekke ca daara ja ah lu sëriñ daara ba torop kon nag seen xalaat yu rëy yooyu macha allah kon bismillah yaay asuba ngeen yëkkati seen kàddu incha allah. aouzu billahi min asalaamualeykum wa rahmatulillahi wa barakaatu. maa ngi nuyu kilifa diine yi fi toog yépp ak kilifa aada yi fi toog di nuyu xale yi nga xamante ne tey ñoo waral bés bu màgg bi waaye itam di nuyu jàngalekati alxuraan yi nga xamante ne ñoo jàngal xale yi njàng mu wér mu mokk mi macha allah ba àddina yépp naw ñu ba ñu am ci ay champion am ci ay champion yoo xamante ne alxuraan rek moo ñu ko may te ñu yàgg ko wut lool te yàlla may ñu ko waaye yàlla may na ñu ko ci alxuraan waaye di sant ambassadeur yi fi teew tey di màggal bés bi di sant suñu wayjur yu góor ak yu jigéen yi teew fii tey waaye di nuyu fédération bi nga xamante ne moo lëkkale jàngalekati alxuraan yi ci senegal yépp ci Sénégal di jàngale alxuraan boole leen ba tey bés bu mel nii di nuyu suñu càmmeñ El Hadji Abdoulaye Dia xalaat xalaat bu rafet bii gis ko bitim réew yéene ko Sénégal kon ñun amuñu pay El Hadji Abdoulaye Dia dañ koy bàyyi ak yàlla ndax tari bii tey dafa am lu rëy lu mu jur Sénégal 45 départements yi ci Sénégal yépp ay ndey daara lañ bu ngeen gisee salle bi vert blanc bari na fi lool te ñépp ay ndey daara seeni ko kaala yii tey ëpp na ñetti junni kaala yoo xamante ne lépp Sénico lañ ci bind partenaire de Ndeye Daara te loolu yépp sëñ Ablaye Dia ko waral ngir teraanga ji mu teral nag alxuraan teral ko ñooñu alxuraan ndax teral alxuraan weesuwul fii nga xamante ne fa la dalal ndongo yi tey équipe nationale football lañ fa daan dalal wala basket wala yeneen mu yóbbu fa xale yi xale yi di ko bëggee terale ko lislaam waaye terale ko alxuraan ndax ci dolli concours bii dafa jur ak jubale ak bokk ci Sénégal ndax xeet yépp tey boo seetee tey ci biir salle bi ñu ngi fi fii ba Kidira fii ba Niassia fii ba Tamba fii ba Kolda fii ba Vélingara ñépp a ngi ci biir salle bi te lépp alxuraan di moo leen indi kon ñu ngi sant yàlla di sant sëñ Moustapha Lo mi nga xam ne xalaat bu rafet bii yàlla ci moom la ko jaarale waaye it secret bi nga xamante ne maam yi dañ ko gasoon suul ko sëñ Ablaye Dia sulli ko ba tey lislaam bi yëpp di ko jëriñoo kon umma bi yëpp ñu ngi lay ameel njukkal te di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla lii ngay def ci diine ji di ko def ci alquran ji yal nañu la ko yàlla fayal di la wax ne nag ndey daar yi ñu ngi lay sant di la gërëm ndax at mu jot nga may leen billet ren may nga leen ñaari billet màkka pour ñu dem aji màkka jox leen financement boo xamante ne dañ koy jël di ci liggéey ngir mun a gën a saytu taalibe yi ci daara yi ba mun a fexe ba xale yi lépp loo xamante ne war na leen ci biir daara yi ñu du ko def kon sëñ Ablaye Dia ñu ngi lay ñaanal yàlla lii ngay def yal na nga ko gën a mën xale yi toog de di xale yu jigéen yi dama nekk ak ñoom ma ñëw jóge fii dem ñu ne ma bàjjan lan la ñu mën a defal ban cadeau lañu mën a defal suñu pàppa ndax papa la ñuy ooyee sëñ Ablaye Dia ma ne ko cadeau bu mel naka ñu ne lu luñ ko mën a jox rek ba mu kontaan ma ne leen xanaa alquran alquran rek ngeen ko mën a jox mu bëgg ndax alquran moo tax mu defal leen li mu leen defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf waaleykum salaam jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu soxna Asuba wax ci kàddu ndeyu daara yi kon mbokk yi dañuy daal jàll nag ci kàddu gi nga xam ni mooy kàddu ki amoon xalaat bi di waa Sénico Serigne Abdallah jiite ko. mbokk yi kuy wër di wëndeel sa xol ak sa xel fan nga mën a féete sa réew ak sa ndaw réew ak foo mën a bégale xoli jullit ñi di làmb di làmb ba daj li nga xam ni moom moo di jataayu alxuraan bi daj nga mbir kon jërëjëf Cheikh Abdallah Dia xalaat bi rëy na xalaat bi rafet na kon ndongo lii nga xam ne moo nekk ci kaw bu daaneelee ñu woo docteur Khadim Silla bi nga xam ne moom mooy wax ci eh, turu Sénico waxaale ci seen tur yéen kilifa yi seq liggéey bi yëpp macha allah bisimilah ndongo li nga bëggal ñu ci alquran. أعوذ بالله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعلمون علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نبأ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلون وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون sadaqallaahu al eh, macha allah kon eh, kooku moo di Ahmad saw jógee région bu Thiès macha allah gis ngeen eh, njàng mi ni mu ko jàngale njàng mu tey yal na yàlla def ko barke kon su ko defee waxoon nañ ko léegi dañuy jox kàddu gi nag docteur Khadim Silla mu jël ko ci turu Sénico waaye su yeggale incha allah li ñu kilifa gi waxoon di Cheikh Abdallah moo di bis bi na saf sàpp ak alxuraanul karim na saf sàpp ak yàlla bu ñu fi jógee nañ duy ba suñ xol yi fees ci alxuraanul karim kon bu kàddu Senego jàllee dinañ leen indilaat xale yu bare bare ñu jàng ba ñëpp kontaan ñu soog a jàll ci programme incha allah docteur Khadim bismillah bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum yéen mboolem ñi teew ci jataay bii yépp ak ñi amoon yéenay teew noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk tey jiital ci nuyoo ak siyaara bi kilifay diine ak mboolem autorité yi fi teew yépp gannaaw loolu nag noo ngi ñëw ngir yëkkati kàddu yi baaxoo yëkkati ci jataay bii ci tur ak ndégalu sëriñ Abo Mbàkke Muhammadul Maamun ak maam Alxaaji Omar Dia ñoom ñaar ñi nga xam ne ñooy kilifak sëriñ Abdoulahi Dia ñu wax ne ñu ngi tàmbalee seeni kàddu ci siyaare ak sant xalif général des mourides cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ci yitte ju réy ji nga xam ne jox na ko bis bii ak jataay bii baloo tax mu yónnee fi délégation bu mag ci njiitul rakkam sëriñ Cheikh Ahmad Badawi mu Cheikh Mouhamadul Fadal boole ko ak ki mag ci njabootu këram muy sëriñ maam Thierno Mbacké ñu ñëw fekk fii nag seen kilifa di sëriñ Isaaxa bu seex Mouhamadul Bachir gannaaw loolu ñu wax ne bis bi nga xam ne moom lañ tuddee jàmbaar yi lislaam jii di Seydi Aboubacar Sy lii ko waral moo di jéem a jaar ci yoon wi nga xam ne sunu kilifa yu baax ya daan nañ ca jaar ci di sàmm ak a dundal bokku diine ak bokku deret gi jaar diggante Touba ak Tiwaawan te maam Cheikh Anta Borom gaawaan mi nga xam ne moo jabootee alxaaji Omar ja ak soxna Astu Dia ak njabootu alxaaji Ibrahima Dia gépp doonan jëmm ji nga xam ne moom la Sëriñ Touba digalan muy liggéey ci lépp luy rafetal diggante ñaari kër yi ba loolu moo tax bi Seex al Aji Malik Si génnee àdduna moom la fa Xaadima Rasuul yabal mu dem Tiwaawan ànd ak délégation bu mag waaye digal ko it ne na nga fa am ab diir ngir wettali njaboot ga ba sëriñ Abdul Asiis Al Amin wax na ma ne diir ba mu fa toog moom borom gaawaan ëpp na ñaari ay bis yoo xam ne bis benn bu nekk xeeti bernde yu ñuy préparé ci kër ga mu dal di ko yóbbu ci mboolem ja kër yi jabootu Cheikh aji malik si Sy nee na mboolem dëkk ya ak gan ya mënuñu ko woon a xaajal sëriñ Abo ak maam Omar wax nag ne gannaaw bi nga xamee ne jéem a sàmm taxawaay yu rafet yii mag ñi amoon ak jéem a delloo njukkal Seydi Ababacar Sy ci taxawaay bu bi mu amoon ci diine ji moo tax ñu séddee ko bis bii mi ngi seedeel mbooloo mi yépp ne njaboot ak maam Alaaji Malick Sy gépp ci njiitul sëriñ Pape Malick taxaw nañu taxawaay bu mat sëkk jëf nañ jëf ju rëy ci bis bi def ko nag ci njiitul sëriñ Pape Malick mi nga xam ne moo yore caabi buntu kër sëriñ kër si waaye moo yore kàddu kër maama moom Alaaji Malick moo doon kilifa goo xam ne diirub bi ñu tàmbalee liggéey bi ba léegi mi ngi ànd ak moom sëriñ Abo ak maam Alaaji Omar nekk ci kanam Abdullahi ak doomi ndeyam Moustapha Ndiaye di leen taxawu ak di leen wéttili ak a waxtu wu nekk ci liggéey islam bi ñuy def taxawaay bii nag tax na sëriñ Abo wax ne ah moom ak alaaji Omar cant gi nga xam ne moo jëm ci njabootu maam alaaji Malick ak cant gi nga xam ne moo jëm ci njabooti këri diine yépp ak mbootaayu islaam yi ci loxoom lañu koy teg gannaaw kàddu yooyu nag ñu wax ne ñu ngi yëkkati ay kàddu yooyu cant ak ngërëm ci turu Abdoulahi ja ak ci turu doomi ndeyam Moustapha mi nga xam ne moom la bokkal liggéey bi muy Moustapha Ndiaye di ko jëme ci président de la république son excellence monsieur Macky Sall di seedeel ne moom day jëmm joo xam ne mës la deñ benn yoon di leen taxawu ak a jàppale ci biir ak ci biti ak di dugal loxoom bu baax a baax ci bis bii ak bis ko jiitu waaye di sant itam jëwriñam yépp itam ñuy taxaw ci bis bii ak di taxaw ci liggéey bi nga xam ne moom la Abdullahi ànd ak Moustapha di ko def ba loolu tax na ne ñu ñu ngi sàkku ci monsieur Amadou Talla ministre de l' éducation nationale bi jiitee délégation bu mag bi mu àndal ñu jël seeni cant ak seen yooyu e jottalil ko ko président de la république mi nga xam ne moo leen fi yabal gannaaw kàddu yi cant ak ngërëm ak seede yuy jiital nag sëriñ Abo wax na ne ci turu sëriñ Mamor Mbacke xalifa borom gaawaan ak ci turu sëriñ Jili mbakki xalifa sëriñ Muhammadul Maamun ak ci turu boppam mi ngi ndokkeel njabootu islam gépp rawatin nag ñi sédde seen bopp liggéeyal téereb yàlla bii di alxuraan muy doomi daara yi ci bisub alxuraan bii ñu fiy dajale at mu nekk ak ndam li leen ci yàlla yi defal waaye sëriñ aboo nee na nag mi ngi yëkkati kàddu yu soññee yoo xam ne jëmmi boppam ji ak ñi nga xam ne mooy seen jëw riñ ci toolu islaam la ca jiital te mooy nu gën a fonk alxuraanul karim tey tënku waxtu wu nekk nag ci ay njàngaleem tey nu gën a farlu bu baax ci taxawu ak jàppale daara yi ak doomi daara yi ba li ñuy jànkonteel ci ay jafe-jafe wàññeeku nee na itam moom sëriñ Abo mu ngi dellu siwaat ci turu kilifaam yooyu mu tudd ak ci turu boppam cantu njabootu borom gaawaan gépp ci alxaaji Omar Ja ak soxna Astu Ja ak ñi ñu njabooti ñëpp rawatin nag jëm jii di Abdoulahi Ja ndax ay jëfam akub liggéeyam ci daaru salaam ak njabootuk borom gaawaan ràññiku na lool te anam yiñ koy defit rafet na lool ba tax na gannaaw bu ñu ko santee ñoo ngi koy ñaanal sunu borom guddal aw fanam tey dolli waxtu wu nekk am amam ak man-manam ba mu motti li mu yéenee liggéeyal lislaam lépp te bàyyi fi nag alxaaji omar ak soxna astuja ñuy wéy di gunge njaboot gi ba ca kanam gannaaw loolu maam alaaji omar it wax na ne moom ak soxna Astu Ja ñi ngi sant njabootug borom gaawaan gépp waaye ñi ngi santit askanu njaw yépp waaye ñi ngi jël seen kàddu ci turu abdullahi ak doomi ndeyam Moustapha Ndiaye di sant bokk yi ak mboolem seen wëlëre yi nga xam ne diir bi ñu tàmbalee liggéey bi ba léegi ñi ngi ko ànd ak ñoom ah, di ci dugal seen loxo ak seen wërsëg di ñaan sunu borom ci darajay alxuraan yàlla wàccee barkeb alxuraan ci ñoom waaye maam Omar ak sëriñ Abdoulahi it ak maam Astuja itam ñi ngi leen di seedeel ne ah waxtu wu nekk bépp taxawaay bu ngeen dégg wala liggéey bu ngeen gis wala ngeen dégg ko Abdoulahi di ko def ci lislaam ak ci bokk yi. na ngeen xam ne moom ak doomi ndeyam jii di Moustapha Ndiaye ak way juróom ak ay rakkam ak i bokkam yépp ñoo ko ànd di ko def ba tax na ñu ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal leen ci bis bi ci darajay alxuraan yàlla sàmmal leen seen ànd bii aar ko musal leen ci seytaane ak lépp loo xam ne lu yàq ab ànd te lépp lu leen waaye di ñaanal daal ñu boole leen ko ndax ñaar kenn nit lañ yoo xam ne du ñu ñaar waaye kenn lañ gannaaw bu loolu jeexee ci jeexal kàddu gi maam alxaaji omar ak soxna astu it nee ñu ñu ngi sant bu baax sunu borom subhaanahu tey rafet lu ànd bu rafet bii nga xam ne Sénikoo ànd na ko ak mbootaay gi nga xam ne moo lëkkale daaree alquran di liggéeyal lislaam ak alquran liggéey bu toll ni bii di sakku ngeen ñaanal leen ànd bii yàlla sàmmal leen ko aar leen ko musu leen ci lépp loo xam ne lu ko mën a gàllankoor ba at mel na mu nekk ñuy am ay ndam ay ndam ay ndam yoo xam ne islaam yëpp dañ ci gis seen bopp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah docteur euh, Serigne Khadim Sylla yëkkati woon kàddu waa kow ñoom ñi nga xam ne xalaat bi ci ñoom la tàbbi woon ñu ñorool ko seeni xol bëgg daal jataay alxuraan bu yaatu boo xam ne réew mépp lay làmbe muy concours national yàlla dimbali ñu ren ba ñu nekk ci cinquième édition bu grand prix bi. takat ñi yor prix bi ñi ngi may dey nii premier bi buñ ko waxee ba wax li mu war a am dama yaakaar ni foofu la waxtaan wi yem macha allah lool lépp di ay teraanga kon yàlla na yàlla fay waa ko fay waa fédération bi nga xam ni ñoo ci ànd ak ñoom ñu wéyal ba tey rek ci teraanga yi nga xam ni ñoom ñoo fi ñëw waxoon naa monsieur le président de la république cinq millions yi nga xam ni dawal na ko ci xalaatam booleeg ministre am yi yëpp kenn ku nekk mu ni la demal tewagal ma fa doon sama jëm jëlal ma xalaat ya bu ma ñëwee waxtaan macha allah yàlla na ko yàlla fay. boole ceek euh, def nañ benn CRD gouverneur jiite ko ñu waxtaan seet yan matuwaay lañ mën a jël macha allah ba bis yu service bu nekk. di service de l'État fenn fu la ci laal rek nga xool noo ciy jàppe ba nga xam ni bis bi dafay aw yoon ni ko président bëggee loolu tam amal nañ ko ba tax na gis ngeen waa police national waa gendarmerie ak sapeur ñoom ñëpp macha allah kenn ku nekk li la war ci bis bi rek yaa ngi ci te mooy taxawu nit ñi te aar leen macha allah waa santé tam kenn demul ñu des ndax ku ne xam na ni daara ak wér-gu-yaram ñoo ànd ndax waxkat ba dañu woon un esprit sain dans un corps sain xel mu sell pour mu liggéey day nekk ci yaram wér kon jërëjëf euh, waa santé waaye dans sa globalité jërëjëf monsieur le président de la république ak ensemble gouvernement yëpp euh, jamiyatu ahlil quran bi Fass Touré di lëkkalee ñi nga xam ne ñoo jàngee Fass Touré ñoom itam ca dimanche bi rek ñoom la ñu nekkaloon fii ci Grand Théâtre ñuy joxe mbégum alquran ñoom def nañ délégation ki ko jiite moo di Amir Serigne Makhtar Silla ànd na ak général bi Serigne Moussa Mboup ak Abou Taha Mouhamad Alioune Guèye chargé de communication joxe nañu 500000 nee nañ leen ko booleel ci liggéeyu alxuraan boobu bañ ca jógee Moussa Mboup secrétaire général ba euh, mel ni ko beddiku boppam di wanewaat cofeelu alxuraanam yëkkati enveloppe bu 2 millions joxe ko ni moom it nañ ko ko defal ci liggéey bi yàlla na ko yàlla fay jërëjëf kon Serigne Moussa Mboup Isxaqa Xabatu Sawda di doomu daara moom itam euh, tayit nee na mi ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo joxe résultat yi premier ba cinquième kenn ku nekk defal na la benn loo ci garab yi nga xam ne mi ngi koy liggéey di ci jëfandikoo médecine prophétique di atib nabawi di ci faj ay nit ci anam bu yéeme di ci dem bitim réew di ci def ay exploit nee na ci alxuraan la gën a yell kon xale yi un ba cinq kenn ku nekk defal na la loo boo xam ni gratuite lay doon te fii lañ la koy joxe teg na ci enveloppe deux cent mille ni nañ ko ko defal ca liggéey ba Malick Ndiaye bu ñeseen électronique moom joxe na deux cent cinquante mille ni nañ ko tàbbalal ci liggéey bi Saw Thiam joxe na un million ni nañ ko defal ci liggéey bi Maguette Dia joxe na cinq cent mille ñu tàbbalal ko ci liggéey bi Dior Sow joxe na cinq cent mille ñu tàbbal ko ci liggéey bi macha allah waaye maam euh, maam Mor Dieng moom joxe na cinq cent mille francs ñu tàbbal ko ci liggéey bi maam Cheikh Mbacke bu ay AIS cañ présenté ko léegi joxe ne deux cent cinquante mille francs dinañ ko ko tàbbalal ci liggéey bi incha allah loolu lépp nag ñi jiite liggéey bi ci turu Cheikh Abdallah Dia nee nañ incha allah dërëm bu fi ci tàbbi dana dem ci alxuraan ndax moo ko tax a jóg kon su ko defee dañuy daal di wéyal jataay bi euh, jàll ci beneen ndonga ndax loolu la ñuy wax na bis bi saf sàpp ak alxuraanul karim ñu woo ndongo la ñuy wax Maxtaar la jógee région bu Dakar Eh, dina ko topp Mouhamadul Mahi Touré jóge Kaolack kon eh, Cheikh Aboubacar Faye ñu indi Makhtar Sylla bu Dakar bu ñu paree Mouhamadul Mahi Touré Kaolack Ibnu Omar Dia jóge Dakar Babacar Ñang jóge Kaffrine ñii ñëpp nag bu yeggalee ñu jox suñu gan gi jóge Guinée te gagné prix boobu ci Koweït ñu annoncé ko léegi incha allah. Euh, su ko defee moom itam mu jàngal ñu alquranul karim bismillah Makhtar Sylla jóge ko euh, fi nga xam ni moom moo di bu Dakar bokk ci finaliste yi bismillah الرحيم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم kadhalika najzi zaalimiin awalam yara وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا وجعلنا كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم خلق الإنسان من عجل سأريد sadaqallahul aziim euh, macha allah jërëjëf euh, suñu ndongo loolu moom itam di Makhtar Sylla jóge ko région bu Dakar kon mi ngi noonu ni ko kilifa santaane mooy bis bi nañu fesal suñu mbégum alquran na saf sàpp ak alquran kon dañuy wéyal njàngum xale yi woo Mouhamadul Mahi Touré jóge région bu Kaolack na Ibnu Omar Dia bu Dakar waaj.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 سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع بصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم لها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم بارك الله ما شاء الله waxuma dara waaye aay bi mu daanelee mbokk yi ëllëg suñu kanamu boroom buñ nee jàpp suñu téere ni am jàngalal sa bopp la nga doon jëf ci àdduna dinañu neex lool suñ jëfi tey jii feeñ ca mbokk yi bisa ngi boo xam ni wala fay wax ni bàq bi tooy na kenn ku ne nii ñuy lime ni diw def na nangami million da ngeen ne da koo def sànni ko déedéet da koo def ci compte bloqué boo xam ni compte ba du fayit directeur ba du démissionné këpp kees du fa am bu ëllëgee danañ ko fekk mu ni ñum loo jiital ci sa bàmmeel yaa koy moom kon ñiy joxe xam nañ li ñuy def jërëjëf doom ci dégg gi nga dégg lu ñuy def ba daaneel lañu foofu sa aaya boobu kon képp ku fi tàbbal sa dërëm ngir bërëbu alxuraan boobu ñuy tabax gaaw yegg ngir ñu xam ne lii taaru alxuraan la yal na la ko yàlla fay bokk na ci ñooñu nag euh, madame la ministre Seynabou Gaye nee na kat yéen a wax ni ku ci tàbbal dara niin ca kon nag dama ciy tàbbal ba dellu incha allah joxe na 200000 francs yàlla na ko yàlla fay dinañ ko dugal ci liggéey bi soxna Khady Touré joxe na mille francs dinañ ko ko tàbbalal ci liggéey bi am na benn jàmmu yàlla bëgguta a wax turam kenn la ci mbooloo mi mbokk yi ne amaan na sax ndax dana dal nit ngay jëm ci mbooloo ñu yóbbaale la waaye boo demee forale ci yiw wa yëkkati na 2000 francs muy ñeenti téeméer ni nañ ma ko tàbbalal ci liggéey bi takbiir waaw mbir mi yëkk la walaay ku foog ni dërëm bi nga desal sa poos boo ko delloo moo lay sakkanal sam koom <laughs> déedéet nañ ko def ci liggéey yàlla bi jërëjëf jàmm yàlla boobu yàlla la yàlla fay euh, sëriñ euh, Bachir Khadim Awa Ba moom itam macha allah defe dina nag jëfi kilifa xas jili joxe na ñeenti million 4 million la joxe yamu ca joxe cinquante tonnes ciment ni nag xaalis ciment koy gunge buñ bëggee tabax gaaw kon sang bi jërëjëf xalaat bi rafet na jëf ji rafet na waaye nag suñu parrain waaw nee na yemul foofu danaa la jox nga mottali nee na suñu parrain El Hadji Papa Malick Sy sang bi sa wajur wu tedd wa maam Babacar si nan la doon taxawoo daare yi nu mu doon taxawoo doomu soxna yi ni ko jii jili jàngate léegi ak docteur Khadim Lo mu ni euh, docteur Khadim Silla jërëjëf mu ni bi ma jógee samay mbokk dañ ma topp olof dafay wax ni silwise yamul ci mën a sañse rek waaye nag xewle say mbokk ñëw ca la kon njabootu Seydi Hadji Malick gépp ànd nañu gunge seen kilifa Hadj Pape mu yëkkati nag enveloppe bu cinq millions juróomi million tàbbal ko ci liggéey bi jërëjëf si yàlla na la yàlla fay macha allah yaag ñi ngi ko bokkal ñëpp kon su ko defee Hadj ji lii ñu eggale lang googu rek eh, ci bu gaaw eh, su ko defee bis bi moom dafa war a saf sàpp alquranul karim te dese nañ fi ay ndongo yoo xam ni war nañoo jàng kon dañuy jàll rek ci Ibnu Umar Dia jóge ko région bu Dakar Babacar Ñang bu Kaffrine na waaj soxna Xadijatu Dramé bu luga moom it na waaj Ibnu Umar Dia Dakar bismillah أعوذ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما ونزلنا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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا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 واتبع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم allah macha allah ah, kooku moo di Ibnu Umar Dia jógee région de Dakar ñuy santaat di gërëm commission bi nga xam ne ñoom ñoo doon sonn dugg ci 14 régions yi 45 départements yépp génneel ñu biis wi macha allah génneel ñu champion yi yal yàlla fay leen dañuy jàll ci geneen gone eh, eh, Serigne Babacar Niang jóge ko région bu Kaffrine Serigne Babacar Niang Kaffrine na soxna Khadijatou Dramé bu Louga wàcc Ismaïla Serigne Ismaïla Ndiaye bu Matam moom it na wàcc te topp ci Serigne Babacar Niang Kaffrine bismillah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 عباد رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما صدق الله العظيم